waaw sox sorti euh, Cheikh Yérim Seck bi de ak livre am bi man biñ partagé vidéo bi rek ñu koy partagé patriote yu bari di ko partagé laa ne leen def leen ndànk attention euh, man ñaawoon naa njort lool ne maanaam lu tiire suñu attention la bëgg parce que livre bu génnee mu jaar mais man jàpp moo woon ne mukk Cheikh Yérim Seck dana ñëw ànd ak opposition bi dana ñëw ànd ci défendre intérêt Sénégal man loolu jàppuma moo ko woon effectivement bi génn bi livre génnee loolu la wane waaw loolu la wane maanaam Cheikh Yérim dafa démissionné woon ci wax ci lépp loo xam ne dafa jëm ci public bi maanaam waxe ci pénc mi daf daf daf ne woon bàyyi na ko day dem toog ci njabootam lan loolu lan moo taxoon parce que jàpp naa ne booba yëg na ne dëkk bi amatul sécurité ci ci moom ci ñoom ñi nga xam ne ñi ngi attaqué opposition bi yeeg jàpp na ne dëkk bi daal dina mujj ci loxo yi ñeneen wala ci loxo yi keneen te su ñoom ñi nga xam ne ñi ngi doon contre li peuple bi bëgg dinañ si biir conséquences yi mu dem toog léegi nag bi mu gisee ak Macky ni mu jóge jógeeg jëndi ngànnaay ak jënd lu nekk ñu léegi dëkk bi am na sécurité lu la neex waxal ci nga gis Ismaïla Madior Fall ci nga gis sorti yu bëree bari bari ci nga ko tàmbalee gis waaw sorti yu bëree bari ci ko tàmbalee gis Cheikh Yérim Seck nag dafa toogoon léegi nag boo toogee liggéeyoo moom di nga soxla da nga soxla sa njaboot dundu di nga soxla yu bare bare bare munul ñak nga genn def ben coup bu dal pour am appui gouvernement bi man dal non rek la ko jangate mais ñi nga xam dañu and ak Ousmane Sonko dal nañ yamale projet bi ak seen bakkan kep ku and ak projet bi ñu and ak yow xex pour projet bi taxaw pour liñ bëgg ñu am ko képp koo xam ne taxaw na pour contour projet bi ñu contour la